Euh, ar-Rahman ar rahim Salam alaikum. madame la présidente ñu ngi lay monsieur le ministre de pêche ñu ngi lay nuyu di ministre institution di nuyu say directeur di nuyu directeur de Bilsé di nuyu frère honorable député di nuyu journaliste ici. ci kaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, monsieur le ministre bala may dugg man samay wax dañ maa yóbbante Khadijatu Diallo nee na mi ngi lay ñaan ay frigo yoo xam ne yi dañu ko war a yóbbu Lompoul ca département bu Kébémer ak jaaykati jën yi nekk biir euh, marché Kébémer loo leen mën a jàppale ba ñu am ay euh, fu ñu mën denc seen jën yi nee nga jàppale leen ci loolu Xadijatu Jàllo moo ma ko yóbbante bi loolu jàllee nag ma dugg ci ci samay mbir euh, député la Europe du Sud résidence Espagne monsieur le ministre daa am loo xam ne dama ko dégg tey ci suba ci rajo yi ma di ko laaj parce que dañ ne dafa am ay sénégalais yoo xam ni dañoo kidnappé ay ay guinéen Bissau may laaj loolu ndax yow ak ci na ci yow wala yan taxawaay ngeen ci taxaw am sénégalais yoo xam ne itam dañ leen jàpp ci Guinée Bissau may laaj yow ba xam xibaar boobu ak ci na ci yéen wala déet ak yan taxawaay ngeen ci war a taxaw ndax dañu ñaari réew yoo xam ne dañoo bokk lépp kon lépp loo xam ne dafay mën a gàkkal suñu diplomatie wala lépp lu ko yàq

su fekkee dañoo wékku ci yow war nga leen a geesu jàppale leen ba nga xam ne bii dañ ne ci condition yu baax ndax marché la boo xam ne bii ci sous région bi bari wu fi te kon marché boobu boo amee dañ ko war a gën a jàppale jàppale liggéeykat yi fa nekk itam pour marché bi lañ fay liggéey ñu mën a fexe ndax da ngay gis camion yu jóge ba Mauritanie wala ñuy jóge ci yeneen réew di ñëw monsieur le ministre ci port bi biñ fiy visité gis nañ fa bateau yoo xam ne ay sénégalais leen jël bateau yi dem matriculer leen ci beneen réew ci sous région bi ñëw di napp ci géeju Sénégal est-ce que loolu yoon la wala du yoon monsieur le ministre dañuy war a itam suñu géej gi ñu yéen a jéem a jàpp suñu preuve yu ndaw yi ñu am ñu xool ni ngeen defee contrat yi ak Occident yi bu ko defee contrat yooyu ngeen xam ni ngeen koy defee géej gi ngeen di ko noppal su ko defee période boo xam ne kenn dootu napp su ko defee jën yi ci nekk dañ mën di dana dana dana mën a baax ba su ko defee suñu xale yi nga xam dañ naan barsa ak barsàq ñu si bari dootuñu dem ndax li waral barsa ak barsàq mooy géej gi dara nekkatu ci dara nekkatu ci te li ko waral itam gis nga tubaab yi am nañu benn jikko boo xam ne bi yàq suñu économie yàq suñu ëllëg suñu futur yi doom yi ëllëg jar na sax def ci dara ci biir géej gi loo xam ne sax boo liggéey kenn jën sax dootu fa jur te loolu yëpp da ngeen ko war di sóoraale bu leen leen wóolu bu leen leen wóolu jaruñoo wóolu ñun ñu fi dund 40 ans ñoom xam na lu leen bu baax man 40 ans def naa ko Espagne bi ko xam naa lu bari ci tubaab yi tubaab duma ko wóolu ak lu ma xarito xarito moom du ma ko wóolu kon dafay am fu ngeen war di mën a yem ak ñoom benn monsieur le ministre euh, euh, jeunes yi su ngeen leen bëggee jàppale bu ngeen leen formé bañ surtout maa nag lébu yi nga xam ne ñoom ñoo xam jën ñun xamuñu jën ñun ca kaw ay kaw kaw lan ci àll ba lan dëkk maa ngi lay sant di la gërëm ndax am na loo ma loo dig nga camion frigo suñu dëkk muy waa Kaneen Diop yàlla na yàlla sottal ko ba mu àgg jàmm maa ngi la koy ñaanal di ko ñaanal ñi ko ñi ngi ko di ñëpp itam yàlla ko yàlla àggale ndax lépp lu waay di def ci réew mi république ngeen fi nekkal état ngeen fi nekkal suñuy lempoog suñuy taxe yéen a koy jën yéen leen koy jox yéen nu gouverner kon suñu amee lu ñuy waxit yéen leen koy wax ngeen mën ko joti ci opposition la nekk nag waa socialiste yaa ngi lay ñaanal fii waaye man da maa ngi ñaanal candidat yu euh, euh, maa ngi ko wallu Sénégal yal nañu gagné ci barkent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf merci honorable